sàmmkat lañu ñun bala ñuy sàmm élection dañuy sàmm réew mi dañuy sàmm école bi parce que école bi moo tax ñu nekk li nekk école bi moo ñu jox lépp kon école boobu ay nit duñu ko mbubboo bëgg koo politiquer bëgg a yàq école bi xañ xale yi seen ak ak seen yelleef muy danoo war a jàng pour tekki ëllëg mën a jariñ seen i wayjur ñu nar a yàq école boobu sur une base politique ni dañuy politique loolu moo tax ñu daal di jug li tax mu rax mooy syndicat li tax mu jug mooy la défense des intérêts matériels et moraux syndicat day jug pour xeexal su fekkee ñi liggéeykat yi seen i ak ak seen i yelleef dañ koo jalgati mais kañ la ñu mas a gis ab syndicat jug di porter ab revendication politique loolu ñu ngi wàcc seen ànd te ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa boromam boromam. politiciens yi mu mosuñoo ànd ak ñun ci suñuy combat ba ñuy xeex pour IRD gisuñu politiciens yi ba ñuy xeex pour augmentation gisuñu politiciens yi léegi nag dañu ñëw pour yàq élève école bi.